al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi nuyoo tey ziar di ko tekki loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xabaan eh, ñaan yi mbokk yi ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu te boole ñu ko mbokk mi laaj nee na eh, day leerlu maanaam qadri salaam ji ñëw ci waxi sëriñ bi ci téeréem bi di tazawudu sigaar wa udda min sunaniha aljuluusu li awalin wa axirin fa qiisu wa zaidun ala tumaninati thum qadri salaami thumma jahrun qad ya um fi sëriñ bi limee sunnay julli dagg ci wax ne eh, ci bayit woowu muy laaj nag qadri salaam qadri salaam de la ci boroom xam-xam wax mooy waxin la ci jataay bu mujj eh, ndax jataay bu mujj eh, dafa am ay àtt yu bokkut ndiir si ngay toog di taaya ak def salaatu ala nabi loolu sunna la waaye boo taaya ba noppi nag ba war a wax asalaamaaleykum diggante soosu ngay wax asalaamaaleykum jekki ko farata la moom nga xam ne boo taaya woon ba taaya jeex nga jóg taxaw ne asalaamaaleykum sa jul yàqu ndax da nga bàyyi farata bu fekkee yàqu euh, nag euh, li dolli ci jataay kem ndiir si nit ki wax asalaamaaleykum subaa nag xëy na day nuru li awwalin wa axirin ji day mel ne limoon na jataay bu njëkk ak jataay bu mujj bi kon mel ne da ko tudd ñaari yoon loolu lay nuru da ko tudd ñaari yoon rek xëy na nag jafe-jafe bi am buy lim dafa mel ne dafa am beneen sunna bu ñëwut mooy sami allahu liman hamidahu ci sunnay julli yi la bokk te sëriñ bi ca aljawhar nafis limaale na ko waaye fii na dafa mel ne ñëwut ci bay ji ndax du nekkoon dafa am bayit bu ñëwut nit ki nga xam ne lu mel noonu it wax nañ ko ci ci buntu aj ba ba muy lim ah, sunnay armal eh, julli julli ñaar rakkay armal yi ñëwu fa loolu it am na ñu wax ne dafa am aw bayit woo xam ne dafa ñëwut ci eh, eh, nu sax yi ñu yor fii loolu mën naa nekk baax a baax wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na xaside gi tàmbale yaa rabbana ilayka ashku xaali bil mustafa wa xamsati rijaali Eh, te ci biir juróom ñoo ñuy lim ñu tudd ci eh, Tayfur ibnu Isa ak Abu Yazid al Bustami te jàpp mu mel ne ñaar lañ ko jàppe te muy kenn Tayfur la tudd Abu Yazid nekkoon kun yaam waaw a gi di wax dëgg man noonu yi laa ko gise rek loolu ci jaaxal mbokk mi it man mii jaaxal na ma ci ba tey it awma lu ma leer ndax ci ne sëriñ bee ko dafa la déeti xam naa ñu bokk gëstu ko rek mu waxee nag ne yàgg na ko gëstu mu ci leeru nga xam naa bay ñu ànd wéyal gëstu bi kon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am mbokkam mu ne ci bitim réew di ko lebal xaalis yónnee ko ko lu juróom fukki junni nee na ci CFA yónnee ko lu toll noonu ci euro waaye nee na bi mu dikkee wekket bi neex ba mu ëpp loolu muy laaj bi fay lu muy fay mais moom lam lam ko yónnee woon ci euro na ko yónnee loo xam ne bu demee mu tolloog loolu ci euro ndax bu fekkee nangami euro la ko yónnee rek nangami euro yi la war a fay wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj nee na lu tax fii ñun ñuy roy ngirum imam malik te yeneen ngir nekk fi toro yuñ leen waaw am ngir de not gum not ci barab dogalu suñu boroom lay doon ñaare ndax ngir yi bi muy diine tasaaroo ña ko tasaare ñenn ñu nekk ci am ngir lañ nekkoon fañ dem na ngir mañ yoroon moom lañ fa tasaare kon fii na ñu fi dugg si ngirum imam Maalik lañ fi dugg see yeneen ngir yi ginnaaw bi la fi ay nit jàng yi ci yeneen dëkk yoo xam ne dañ fa fekk ngir yooyu laaj boobu it manis soon na ko laaj kon boo demee fu mel ne Arabie Saoudite lu tax ñu tënku ci ngirum Ibnu Hanbal te tënku ci ngirum imam malik ndax ngir maa nga fa te imam Maalik sax nag moo doonoon euh, borom xam-xamu Madina muy aalimul Madina doon imaami wa Madina te taxul ñu tënku ci mbiram kon euh, loolu euh, dafa mel ne ni diina doon doxee ñu ko doon yóbbu ñenn ñu nekk fa fañ yóbbu diine ja ñoom ñu ko fa yóbbu ngir mañ yoroon ngir moom lañ fa tasaare nit ñi jàng diine ba xam ko ca tënku ca yokk ci nag fii ci ñun moom euh, Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu moo ji dénkoon ñu tënku ci ngirum Imaam Maalik wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax nit mën naa takk koo xam ne moom maam la ci moom ci mbirum takk soxna tënkoon nañ ci tënk bu gàtt boo xam ne ku ne war na ko mën xam mooy saa booy wax ne diw mi maag nangamam ñoo bokk nangam rek mënoo ko takk waaye soo waxee ne sunuy nangam bokk bu wax ne baayam maag baayam sunuy maama bokk baay su boobu mën na ko takk ndax sunuy am na ci waaye bu dee maag baayam ñoo bokk nangam wala maa ngi maamam ñoo bokk nangam wala maa ngi maami maamam ñoo bokk nangam mënoo ko takk loolu tënk la boo xam ne fu ne mën nañ ko fa jëfandikoo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku julliwutoon takkusaan ba ci darur yi ndax sañ naa jiital naa fi la door julli takkusaan darur yi bu xasee jot naa fi la dañ koy tere ci waxtu woowu ginnaaw takkusaan ci boppam rek dañuy tere naa fi la xëy na nag feeg muxtaar mi jeexut nit ki mën naa jiital naa fi la doora julli takkusaan waaye bu daruri takkusaan xase jot na wow naafile yi woon sax muy lu mel ne jullee néew ak su jotu alxuraan dañ ko fi tere wallahu taala alam euh, mbokk laaj nee na atteb taay daal la bëgg a xam ci julli ndax xam ne dafa mel ne dafa gis ñoo xam ne daal dafa mel ne fonkuñ ko daal la jàpp waaw euh, de sunna mu akkada la ci julli euh, wuute nag am na ci baat yi wax ndax baat yooyu sunna la wala baat yooyu lañ koo sopp man ngaa wax yeneen baat waaye jëmmi taaya moom sunna muakkada la ku ko bàyyi ci julli day sujjóot xabla salaam euh, kon xëy na nag nit ñi euh, taaya li tudd taaya rek mooy li ñu jàng ba ci abduhu wa rasuluhu ci euh, yax biñ am fii waaye ñaan nga cee dolli ko salaatu ala ba yooyu yeneen la bu dee taaya ji njëkk moom ci abduhu wa rasuluhu la ñu yem taaya ji mujj it ku yem foofu taaya ji ñëw na xëy na sunna la nga def salaatu ala nabi sopp nañ nga ñaan yokk ci dooru salmal waaye euh, ñàkk a def yooyu nag du tee julli baax moom bu fekkee jàng na taaya ji moom def na sunna si kon su jot du ko war doonte nag salaatu ala nabi sunna la ñaan ak ñaan ñaan ñaan bala ngaa ta bala sëlmal sopp nañ ko waaye bu ko bàyyi woon nag du tee julli bu baax moom wallahu taala mbokk mi laaj na koo xam ne dañ koo may soxna moom nag daa jot a gisee soxna si nee na ci diggante bi soxna si jot geneen góor ba am laaj ba xam doom ji ndax ndax boroom kër bañ ko may lañ koy askan wala waa ji ko ëmbal doom jooju doomi njaalo la dee su ko askan ci kenn ci ñaar ñooñu kële moom xam na ne jotewut ak moom kon du doomam may nañ ko waaye jotuñoo gisee benn yoon kon du doomam donte ci buumam la nekk kii it nag nga xam ne moo ko moo ko ëmbal kenn mooy kooku dafa njaaloog moom njaalo nag dee su ci doom kooku ci ndeyam lañ koy askan waaye dee su ko askan ci genn góor doom ja doom njaalo la góor ga nag su bëggee soxnaam bu ko laabloo mën naa continuer di sëy ak moom moom borom kër gi waaye doom jooju njëkk am moom du doomam moom wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na poros yi nga xam ne nii dañuy lewli xaalis te booy fay am loolu la ci am loo ci doo maanaam intérêt dal ndax bu ko nit ki leboon faatu ay njabootam di ko fay lépp lañu war a fay wala loolu duñ ko war a fay waaw borom xam-xam dañu wax ne moom Euh, intérêt fay ko warut nit baal bu faatoo moom kenn waru ko miraas lu dañoo fay ay borom bam àgg kon bu fekkee bàyyi woon na fi alal bor yi mu amee dañ ko cee fay su bàyyiwut alal nag euh, fay bor ya warut leen ñoom njaboot ga waaye nag baax na lool am na solo lool ci njaboot seen bàyyi faatu wala seen wayjur seen kilifa bàyyi ay bor ñu fayal ko ndax bor daa bokk ci li doy war am ci xadis bi yoo xam ne bakkanu ba dañ koy aj fekk fiir ay borom te yonent bi ay salaam ci njëlbeen sax daan na gàntu jullee ku faatu euh, bàyyi ay bor te bàyyi wut lu ko mën a fay loolu nag day tax euh, mat a mat a dimbale euh, su ko defee nag bor yi ñuy fay nag mooy bor yi tegu ci yoon waaye intérêt yi ci tegu moom fay ko warut lu dul nag day foo xam ne tey bu fekkoon te ne dañoo dañoo lànk bañ koo fay banque ba dana leen yóbbu ci yoon nangu seen alal jëpp ci anam goo xam ne loru la su boobaa nag ñoom mën nañ koo fay bàkkaar ba gàdd ba banque ba ko gàdd waaye li ñu bañ daal mooy fay ko seen coobare ndax loolu dëgganut euh, la ci doole lu baax bu leen forcé wut fay ko daal waruñ ko fay nañ fay capital ba nga xam ne moom la leboon lam leboon toll noonu rek mooy li war la ci des lu araam la te riba yàlla dara rëbb ki ko lekk ak ki koy lekkloo ki ko jox nit mu lekk ko waaye li ñuy wax nag ne bu fekkee nag. Euh, luwaay réew ma moo moo tëdd noo xam ne buñ ko fayit mën na andi fitna ci ñoom mën nañ ko fayit bakkar ba euh, waa banque ba koy gàddu su boobaa bu fekkee ne seen waajur woowu leb gam leboon ñàkk pexee taxu mu leb ko nga xam ne loo daroor moo kon boobaa banque bay gàddu bakkar bi wallahu taala mbokk mi laaj nee na kafaare ngiñ ku mu war euh, fukki miskin yi nga war a leel mu ne ndax mënees na ko joxe xaalis ci mazhabu imam Maalik day te mooy ma masabu jumhur ulama it mooy deesu ci joxe xaalis ñam lañ ci joxe wala nga wodd leen ay yére solo tey ci ñaari yooyu nga woor ñetti fan kon day fukki miskin lay wut ku ne mu jox ko ñaari mudd mooy eh, liiba kilo ak genn wàll liibar kilo ak genn wàll mooy xaaju ab saa saa mooy ñaari kilo liibar bu day ci ceeb kon wala dugub day joxe kenn ku ne mu jox la kilo ak genn wàll ibaru uh, ceeb mën na it jox leen uh, ñu añ ba suur maanaam ñu suural leen ñaari yoon fukki miskin yi kenn ku ne mu woo leen toggal añ ñu añ ba suur toggal leen reer ñu reer ba suur wala mu def ko ñaari añ wala ñaari reer maanaam daal lekk nañ ñaari yoon ba suur wala kenn ku ne mu solal ko mbub moo xam ne bu julli jotoon mën na sol mbub moo julli mu jot sëkk ba li li war a muur muur ko loolu la bu lottee ci yooyu nag mu door a woor ñetti fan waaye dee su ci joxe ab xaalis fukki fan fukki ñi miskin yooyu nag faaw ñu mat waaw bu jëloon juróom miskin eh, jox leen ñaar jox leen jox leen seddal leen fukki ñaar fukki mudd yi du baax kon fukki miskin ku ne ñaari mudd kon ñaar fukki mudd la yu muy séddale fukki miskin lim boobu dañ koy jublu suñu ko soppi wallahu taala alam mbokk mi laaj nee nag ku amoon soxna am moom ay doom ginnaaw bi bàyyi ko fi tukki soxna sa am doom ginnaawam doomi jàlloo nee na mu ñibbisiwaat wéy di seey ak moom amaat ak moom ay doom muy laaj ba xam doom yi mu jiyoo ba tey euh, moo leen jur walla déet waaw bu fekkee ne moom fas wut soxna si kon doom yi amaat ak moom moo leen jur doom jooju juddu ginnaawam nag xam nañ ne moom juru am na leer nañ ne ci juru ko jooju doom moom dee su ko yéegal ci moom waaye nag ñii juddu ginnaaw bi xëy na li ko waroon nag mooy bu dikkee balaa jotee ndaw si war na koo laablu door a lay seeyaat ak moom. su ko defee doom ju judd nag dooma ndax soxnaa ma soo xam ne waccigu ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla di di ko boolee comme tëgg ñu koy tudd ay xiin nee na muy laaj ba xam loolu yaateem waaw tëgg day mel ni am dënd moom dagan na ci ak céet dagan na ci céet eh, ngir yëgle nga xam ne eh, dañ koy siiwale xew yi xay na tëgg yi ñuy tëgg nii ngir siiwal dara nga xam ne bàyyiloo xel nit ñi ba ñëpp mën a déglu nga wax leen li leen di wax yu mel noonu moom manis na ko def am yeneen rek fola fo nag bu lënkaloog lu araam mbaa mu yóbbu ci lu araam day doon lu araam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na daa bëgg a xam daal diggante jullit ak kéefar lan mooy jullit ak lan mooy yéefar ndax mooy chrétien wala déet waaw ci dëgg-dëgg jullit de mooy ku gëm yàlla gëmub yonentam waaw loolu nag ku ko weddi yéefar la yéefar yi nag ñoo seddli ko nekk ay xaaj am na ci yéefar yoo xam ne dañ leen tudde ay nasara ak ñuy ay yëfoot nga xam ne yéefar lañ waaye nag amoon nañ diine ju jagoon bu njëkk ñooña am na jëflante gu ñu may diggante ñoom joo xam ne mooy ko ñi nga xam ne dañoo weddi amu yàlla moom waaye ñëpp nag ay yéefar lañ waaw ci dëgg-dëgg ñëpp ay yéefar lañ ku li yàlla yoon jox yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam daal képp koo xam ne weddi nga ko yéefar la ndax diina yooyu yëpp diina yu baaxoon la njëkk lislaam bi lislaam ñëwee dafa nasaxal yëpp dugg ci biir kon jenn diine jooju mooy mooy diine yàlla ku ci nekkut ci kéefar nga nekk donte nag seenu kéefar wuute naag kéefar yi des yi nga xam ne ñoo weddi amu yàlla ñoom wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na seet da bëgg a xam ba xam am na yu ci dagan ak yu dëgërut yan sedd bu fekkee ne listixaar li ñuy wax listixaar daal lu dagan la am listixaar ko tegu ci sunna goo xam ne sunna moo ko jàngale saxaaba yi ko wax ne dañu daan jàngal listixaara nit ñu daan jàngal saari alxuraan yi nga xam ne ñaan la da ngay julli ay ñaan sa borom li ngay dugg bu ci yow yàlla jàppandal ko xiir la ci yombal la ko bu gën ci yow yàlla wëlbati sam xel loolu moom lu sax la ci sunna amaa yi ci des nag dañuy xool niñ koy defee lu ci doon ak njabar njabar daganut lu ci doon nag sabab lu ak ñaan yàlla jullit bu nekk sañ na ñaan yàlla waaye lépp loo xam ne dafa lënkaloo ko njabar moom day doon njabar de doon lu xaram ci yëpp kon daal istixaar ak sunna gu ñu xam la gudul googu nag lu nag dañuy xool lañuy ñuy def lu mu doon nañ koy defee bu ci dara génnut àtte sharia ñu mën koo nangu waaye nag doon luñ digle bi ñu digle moom mooy istixaar ak sunna mooy ñaan googu ñuy def ginnaaw boo jullee ñaar raka yoo xam du nekk farata li ngay dugg nga ñaan suñu borom euh, dafa la ci la gën wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na euh, doomi njaalo lu tax ñu wax ne euh, dee su ko fal imaam ak it wax ne lu mu jaamu jaamu yàlla it du dem aljanna waaw dee ko fal imaam de euh, waxu su waxee sut ne dee ko def ci masab Malik sib nañ fal ko imaamu ratib lañ wax maanaam ilimaan ji nga xam ne mooy sax di jiite waxtu yi loolu sib nañ fal ko waaye sibuñ mu jiite leen julli yi. mën nañu lay ci barab julli jot moom mot motal sart imam mën na la jiite amaa nag fal ko mu ilimaani jàkka ji loolu lañ sib ci masab imam Malik ndax ilimaan daa am lu ko war loo xam ne euh, am na xaala yoo xam ne bu ko dalee dana jafe ci moom mu taxaw taxawaay booba yu mel na moo tax ñu di ko sib waaye sib gi nag tekkiwul ne bu jiite woon julligatu lu baax ah kay bu jiite bu buñ ko falo ilimaan bu bu jullee julli bu baax na kon sib gi day dellu ci nit koo xam ne day yomba bu taxawee war a waar nit ñi ci yoo xam ne mën naa am sax du ci mën a àgg ngir ngir ngir ab doom lu mel na nan moo tax ñu di ko sib xam wax ne lu ma jàmm jàmm yàlla tabi aljan nag xëy na euh, ay kii am na am na ay xadis yu am na xadis yoo xam ne bokk na ca bi wax ne euh, dañoo laaj ñu doomu jàlla mu ne huwa asharru thalasa wala sharru thalasa waaw euh, moo ñaar ñi ko njàllal moo ci yées loolu am na ci boroom xam-xam xadis yu saxal ne xadis bu sax la moom su boobaa nag dañ ko wutul ay déggin wax ne euh, bokk na ci déggin yi ñu ciy wax bu jëfee ni ay way juróom def ña ko jur nañ def daal bu ko defee moo leen yées ndax daa juddu ci mbon kon euh, daa euh, doon mbon doon ak mbon la boole kon moo yées waaye bu defee lu baax nag dee su ko jox atte boobu amin ñu ko déggee ne doomi njaalo baax ñaari du ko yomb ndax milieu bi mu juddoo ñaare du am ku ko taxaw it mbon googu sof si moom ah, loolu moo waraloon nit yàlla yi daan wax naan du tàbbi aljanna waxin la ci ne yeyowu ko ndax jëmm ji dox joo xam ne mooy yàlla moo am mu door am mooy yàlla amutoon du am dañuy wax ne ñoom ak maasee mu tajassida lañ koy jàppee ci anam googu la ñuy waxee ngir xupp nit ñi ak waar leen ngir bañ moytu ko waaye aljanna moom ak sawara ñaari kër yoo ñoo fa am kon li ñuy wax naan laaraaf la ñu nekk laaraaf ab miir la bu dox diggante àjjana ak sawara jamono yi ñuy atte jaam yi mooy li gën a lëng ci wax yi su atte bi jeexee ñaari kër ñu am nit ñi dem sawara ñii dem àjjana kon koo xam ne du nekk àjjana du nekk sawara amul foofa bu atte bi jeexee euh, kon doomi njaalo yi ñu doon def lu baax ñoom ñu baax la at seen jëf lañu ñu di atte xëy na nag xadis bi day wax waxiinu li am mooy li gën a bari ci doomi njaalo baax da koy jafe ndax ni mu juddoo ak fi mu fi mu mujj waaye ku ci baax ñu teg ko ci yar yaru baax moom ñëpp yem lu baax lam dafa yàlla koy fay incha allah taala wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit bu faatoo ñi ko war a doon ci ay góor ak jigéen ñëpp ña ñan lañ waaw xam naa loolu de bariwut njariñ lool ndax xam ñépp ñi doon du tax ñépp doon ñi doon ci ay góor mat nañu fukk ak juróom bu dee ci ay jigéen mat nañu fukk moo xam ne ku ci nekk am na nu muy demee mu doon waaye bu ñu daje woon ñëpp bokk fi nekk juróom dong ñoo ci doon kon loolu xam-xam bu ñuy jàng la waaye du laaj bu ñuy laaj ñii ndax euh, buñ la limalee ñii doon ñëpp it du tax ñu ne la ñii ñooy doon ndax du ne fuñ fuñ teew fu ne doon fukk juróom ñooñu ak fukk ñooñu di ñaar fukk nit ak juróom bu nit faatu woon ñaar fukk juróom ñooñu ñëpp bokk fi teewit juróomu ci doon mu ndeyam ak baayam ak doom ju ak doom jigéen ak bu dee góor soxna am bu dee soxna borom këram ñii rek ñoo ci doon te mat na ñaar fukk juróom loolu moo tax euh, bu fekkoon daa xam ne diw daa faatu bàyyi am ñu mu tudd ci ay mbokk ñu xam ne te doon ak ñu lu doon loolu mooy li am li am solo waaye ñi nga xam ne ñoo war a doon ñëpp moom ay buntu yu jàng ci fekk la ci ay góor ak jigéen mat nañ ñaar fukk juróom fukki jigéen ak fukki góor ak juróom waaye buñ daje woon nag ñoom ñëpp juróomu ci doon. jigéen ñi dong buñ fi teewoon ñoom it juróom dong ci doon fukki góor ak juróom yi buñ daje woon ñoom dong ñoom dong na fi di góor ñett dong ñoo ci doon muy ndeyam muy boy bàyyi ak doom ju góor ji ak borom kër moo tax loolu it faw xam ku faatu xam ñam bàyyi loolu mooy jàpp naa li ëpp solo euh, li ma laaj wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa jóge senegal dem ci amam réew waaye nag demu fa ci yoon dafa làqutu ba dem fa nee na nag euh, luwaay yi ñu fa tër mooy dañuy wax ñoom ne ku amul kër waroo fa ne moom mu fexe ba ne fa bi si ñaar day jaay di jaay barab léeg dem barab yoo xam ne dañuy tere ko fa jaay muy laaj atteb loolu waaw ab de la ñuy wax muxaamara waru ko def mooy dugg ci loo xam ne warut te dem ci yooyu lu ne mën na caa dal nit ki euh, moo tax ab jullit daa war moytu yu mel noonu saa buy dox di dox ci lu leer ndax am na ci yoo xam ne bu ñu ci jàppee. toroxal lañ koy toroxal ak doyo dal moo ko teg boppam te ab julit wërta gaaral boppam ci lu mel noonu amaa su fexee ba dem fa nag ya ñuy tere moom tere yooyu mu li ñu tuddee tere luwaay adduna yi da cee am luwaay tere luwaay yoo xam ne moom topp ko daa war mooy lépp loo xam ne maslaxaa ci ne ñeel ñëpp nga xam ne saa ñu ko jàddee lor mën naa am loolu ñëpp dañ ko war a topp lu mel ne luwaay yuñ tër ci code de la nga xam ne ngir nos dox bi ñu mën a nosu ñépp mën a dem jàmm te kenn loolu xëtt ko dëgënut ku ko xëtt day am ndax waru ko xëri su ko xëtt ndax luy jëriñ li nos ñëpp njëriñ ñëpp ki ne amma bu dee yoo xam ne dañ koy tere nag ngir rek bëgg a xatal wala bëgg a aar ñenn mel ne léeg tere jaay yenn marchandise ngir am na ñu koy defar ñu bëgg ñooña seen marchandise jar yooyu moom xëttu ko lislaam terewu ko lu dul nag ne mu leer na la boo ko xëttee dañ la toroxal euh, daf la ci loo xam ne nag jëru ko ci yow su boobaa it nag lislaam day bëgg yu mel noonu nga moytu ko kon yooyu moo ma tax xàmmee ba xam bu fekkee ne li muy fi muy jaayee saa bu ñu jàppee mën nañ koo nangu alalam wala ñu dóor ko wala ñu tëj ko subaa nag moytu ko waaye suñ ko jàppul nag lam ci jot a jaay moom loola te te muy alal ju dagan a jaay te anam ko jaayee anam gu dagan moom su ko jaayee lew na ko ndax tere yooyu moom yeneen a tax ñu di bu fekkoon nag jëmmi li muy jaay la lislaam tere moom ngi dafaa dem di jaay dorog te lislaam dafa araamal ko jaay dorog suwaa nag lam ci am moom du alal ju lew wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na xasida gu mu wax nee na al muqaddamatul kubra muy laaj ba xam xasida woowu dafa bëri luñ koy gis ndax dafa bokk ci xasida walla waaw loolu nag di wax di yàlla leeruma man mii di wax mi koy laaj it xawuma xasida googu gisaguma ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñaari nit ñoo xam ne dañoo am ay jur jox ay sàmm nee nañu dem ci àll ba jur gi jaxasoo nag euh, ñaari kuy ñaari yëkk maanaa di xeex ba far benn ba lor morom ja nee na bi euh, loru sàmm bi ragal ne euh, bu ko reyut mu dee tax mu daal koy rendi te bu ko rendee lam ci am day yées lam ca doon am mi laaj loolu ak ndax yëkk wi loru boroom yekk wi ci des da ko amee na àq ci loolu det waaw loolu de bu fekkee ne lor gi du du ne ñoom ñoo ñoo dàq yëkk wi daf ko lu tax mu lor morom ji waaye yàlla dogal rek ñu daje ba far xeex ba benn ba lor morom ji loolu dañ koy neenal ku kum daal it natt bu yàlla wàcc kawam la waaye dis du fay dara amma bu fekkee nag kenn ki moo xiir aw yëkkam ci morom ji ba gaañ ko moom booba day fay moom mi ko xiir mooy gàddu bàkk mooy mooy gàddu àq jooju da ko dañ ko war a fay xaymaam amma loolu mu def nag ragal mu mu dee eh, di medd muy ñàkk mu daal di koy rendi loolu dimbalante ci lu baax la ndax dañ ko sàmm rek nag waaye eh, wàññi wàññi lor ja la def ginnaaw moom su ko bàyyi medd day ñàkk nag mu daal koy rendi mën a jaay yàpp wa am ca dara waaw dimbali na boroom ci wàññil ko Euh, lor ji néewal na lor ji loolu daal li ci am solo mooy ak déggoo war na ci am nga xam ne na ko waxtaanee ak borom leeral ko xamal ko ne ko lii tax mu rend ko wan indil ko yàpp yëpp it nag suba dara nekk ci incha allahu taala wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na laayu daal daa digle nday jooru nga xam ne looy def eh, njëkk nday joor mu ne nag daa gis jigéen bu amee doom docteur yi dañ koy digal mu njëkk a nàmpal doom ji ci weenu càmmoñ wi ndax dane xol ba foofu la féete ngir mu teel a yëg yaay ji muy laaj ba xam ndax nag jëfandikoo ndigale docteur yooyu ak jëfandikoo sunna si yonent bi alayhi salaam lu ci gën a yaay waaye li moo koy njëkk a laaj de mooy ndax loolu docteur yee ko digle ndax wér na ne docteur yi ñoo wax ne nañ koy njëkk a nàmpal weenu càmmoñ laaj naa ci docteur bu mag waaye la wax moom mooy jànguñ fenn ci médecine fu ñuy waxee loolu kon wax jooju ci boppam moo jar gëstu ba xam sax na wala saxut waaw moo jar gëstu ba xam sax wala saxut amma nday jooru ci lislaam moom lu sax la ci sunna ne yonent ay salaam yu baax yëpp daa bëgg di fi nday jooru wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne bu lu yàgg nee na day am luy génn ci kanam lu mel ne mas wala wad yooyu mel noonu nee ndax kooku ne day war di fóot yére fu mu toll wala déet bu fekkee lim koy dal lu bari la day loolu jàngoor lay doon salas lay tudd salas nag soobee la waaye nag jéggal nañ ko nit ki su baree nu mu koy dal lu baree noonu su julli jotee day jàpp rek su jàppee ba noppi nag lu mën a génn it mën na ko mën naa julli te du jàppaat bu taqee ca yére mën na ko julliwaale ndax loolu lor la su boobaa bu fekkee nag léeg-léeg dong la koy dal saa yu ko dalee moom da da ko war a da ko war a war a war a fóot bu dee mbubbu dem jàppee waaye bu fekkee jamono ji la koy dal nag loola salas lañ koy jàppee su salas eh, nit ki da koy mën a julliwaale wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na li ñuy wax ne aqalu sadaq euh, bu nit joxee loo xam ne matu ko matul aqalu sadaq diijee la ca des waaye nag nee na joxewu ko ndax loolu dana tax sëy bi yàqu wala déet déedéet loolu du yàqub sëy bor la bu nekk ci loosu borom kër bi ko war a joxe te joxewu ko rek ndax ab sëy manis na ko fas sax te duñ joxe ca waaye li ñu bañ mooy ñàkk koo limaale waaye bu ñu waxoon rek ne seen ngi nangam la bor la bu mu ko ameel sëy ba day fasu mu nekk ci loosam bu dundee dana ko fay bu faatoo it bala ñoo miraas dañ ko fay borom bor bu ñuy génn la door miraas door ko miraas kon sëy bu baax na moom ginnaaw fas nañ ko ci sarti sëy yi eh, ñàkk a matu gi day doon bor ginnaaw uh, dàqu ko xanaa da ko da ko da ko nongu ne bor la day ne bor bu ne ci loosam saa yu ko fay baax na bu ko fayit bu faatoo bala ñoo miraas fay bor bu door miraas wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na Euh, li ñuy tuddee alxaybu mooy kumpa yàlla rek ko moo xam xaybu te léeg ñu gis ay nit ñu baax ñuy wax loo xam ne day mel ne xaybu la waaye léeg ñu gis ñoo xam ne it ñu baax te dañ di ko def muy laaj ba xam loolu lu mu doon waaw lépp xaybu de yàlla rek ko xam maanaam xam lépp lépp moom yàlla ko xam lenn xëybu nag nit dana koy xam ci en tariq li ñuy tuddee ak kashf kashfu yàlla defal nañu wuññi leen wan leen dindi kiiraay seen digganteek dara boobu nag ñaari xeeti kashfu la am na kashfun rabbaani am na kashfun shaytaani ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ yàlla di yenkeewal wala moo leen ci ay nelaw wala ju jékki-jékki dégg ak kàddu mu digal leen dara xamal leen dara loola lu am la lu baax la luy am nga xam ne eh, bokk na ci waa ju baax ab jus u la ci nubuwa kon yooyu yàlla da ci xamal ay jaamam lu lu lu loo xam ne lu nëbb la seytaane it nag danañ koy def seen nit ñiñ am ci kaw suuf danañ dem ci kaw dégg léeg-léeg waxi malaaka yi ñu nettali leen ko lu ak seekut kon loola euh, xeeti kashfu la waaye kashfun seytaani leen su boobaa kon li ma tax xool foofu rek mooy ki ko def kan la bu dee nit ku baax daal la te safaanoo wut ak sharia loola kashfun rabbaani la bu safaanoo moom nag kashfun seytaani la kon lu lu leen di am dana di am waaye nag xam lépp lépp moom nga xam ne moom dara dul ëmp moom yàlla rek ko def loolu mooy li yàlla jagoo subhanahu wa taala waaye xam lenn ci xëy bu nag ci sabab yi ñu wax moom dana di am wallahu taala alam mbokk mi laaj ne ndax ku doon joxe asaka am nit koo xam ne da ko ameel asaka mu jox ko ci asaka ba noppi nag fayu ko waat ko jël ko mu nekk asaka am ndax dana dagan bu fekkee ne sartuñ ko woon nga xam ne da ko jox asaka rek ngir ne yeyoo na ko waaye nag dem xalaat ne moom kat amel na ko bor daal di jël ñëw fay ko suboo dara nekku waaye bu fekkee nag da ko da ko koo téere ne ko joxu ko ko ko nga xam ne dane ko daal ameelal nga ma nangam kon loola def naa ko asaka asaka ji ma bëggoon a jox boobaa du baax bu ko joxee ne ko maa ngi lay jox asaka nag waaye dama koy fay ko su ma nappiwaatee daal ko jox nanguwaat ko subooy du baax kon da ko jox asaka rek ngir ne asaka la bàyyi ko nag moom nag bu gisee ne eh, lam ko amee kat mën na ko cee fay mu daal di wal walbati ko fay ko ko ci lu dul genn waxtaan wuñ ci waxtaan wala dégg ko ci déggoo subaa dagan na wallahu taala alam